ne moo nekk yaakaar daal di teewal waa teen bi ñuy daal di def li nga xam ne mooy seen seen seen kii tey damay daal dem xool ah, fan si ñu wax ma tey match bi tey nan lañ ko gisee ah, nuyu naa la sëñ eh, fay naa la. maa yaa ngi am tey nan nga gisee teen beeg yaakaar. ah du yomb de. ah Anwar ah, daal Tamsam équipe bu mag la ñëpp xam nañ ko. foo far. man dëkkuwaay bu neex bi dëkkuwaay jaamu ji Tamsam. Tamsam fu ñëpp bëgg a far. waaw yéen ko déggandoo tey ñaata ñaata lay doon. tey buñ yaroo jël trois buñ reewee jël quatre. macha allah yéen a ko gisandoo damay daal di dem dem xoolaat ñi nga xam ne ñoo nekk waa teen bi ñu wax ma match bi na lañ ko gisee tey ndax tey ah, boo leen gisee rek nga xam ne affaire bi tey du yomb ah naa xuus si rek nuyu naa la. waaw ah, maa lay fay. yaa ngi am jàmm. maa ngi am waaw. yow foo man maa ngi sam-sam. yaa ngi sam-sam trois. waaw ñaata ñaata. non. <laughs> day seral nañ dem. ñëwal fii sëñ bi nuyu naa la. waaw maa lay fay baax. man teen bi laa far. ñaata ñaata. waaw su ma yàlla may li ma bëgg de bëgg naa ko dóor 2-0. lan ngeen wax ñoom ñaar ñi nga xam ne maanaam li leen li leen féewale lan nga leen wax maanaam képp ki nga xam ne tey jël na ndam li dem loo leen di conseillé. waaw li ma leen conseillé mooy entre teen bi ak yaakaar benn lan ndax boo xoolee booy dëkk teen bi ak booy dëkk yaakaar ñëpp ay copain lan copain copine rek moo fi nekk xam nga ñu ñu fubal ko si fair fair rek waaw. ku ku ci yàlla may ndam na nga xam ne yàlla may ndam ki yàlla may ndam mu jël ndamam kii des ñu ñu ñu ko bonne chance rek xam nga waaw ñu doolee góorgóor te nekk benn rek teen bi teen daal benn lan normalement mais nag maa ñaan yàlla nag maa ngi ñaan yàlla nag ñu doo 2 teen bi teen bi doo 2 0 waaw nañu xuus kon nañu xuus ba tey nee naa lu ma bàyyi naa la waaw ah, ñun ñun ñoo lay fay baax a baax na bi tey ah match moom neex xanaa moom parce que ñaari équipe yi xam ne match soog la parce tey moom du yomb ay si ay si thème bi la rëgal rek. ñaata ñaata nga foog tey mooy am. non ça dépend nag bi bëgg naa kaa jox pàtte bi nag mu ñibbi waale ko incha allah. yéen a ko gisandoo waa El Vision Médias tey boo déggee nga xam ne moom moo nekk ah tey du yomb daal naa dem làmb waa waa waa nuy naa la. ay nii. loo def sa bët yi waaw lii Baye Fall yeeg moom lii. lii bu ko gisee rek am na lu tax. tey foo far yow. nawetaan duñ ci eh, xam nga fa drapeau kakoo ji moo tax ma gën see kontaan. match bi nan lay bi li Gris Bordeaux di wax bu ñu nee tàcc ñu xam ne lépp dëgg la barki umul xayri sey waaye xam nañ de ma du ma yee eh, bari waaye mooy loolu bu match bi dawee tuuti ñu xool ñu xool kan mooy mën ñu xam dinañ xam. lan nga gis match moom. ay ay finition la ñuy àggale rek. ay finition yu demee nan. billaahi ay see teen bi. sama gaañ la sama xarit la. mais ne ma xamal ko ne ko ay finition rek la ñuy àggale. barke Alioune Sow te après les dama lay wax bu génnee si match bi lum mu jéemati di ko dina ko mën. bo ñaan neen la bu jeexee jeex na moom boo dégg-dégg mom bu jeexee lay comprendre su jeexee rek jeex na. sha allah yéen ko gëssé gisandoo waa El Vision Média mi nga xam fan fi wax na ko day màtteem du màtte ten bi dina gagné wala yaakar dina gagné même dugg ci bir stade bi rek ñu lay ko yaakaar. voilà yéen a ko gisandoo gis ngeen tay euh, porte bi nu mu xatee ñi ñaa bëgg dugg mu nu ñoo dugg ndax kan wa li nga xam ne ma nekk teen bi ak wa yaakar tay bo gisee dara yobu ni na la fay la foo far bi teen bi teen bi nga far ah tey lan ngay wax tey si match bi nga xam ne am na diggante teen match bi match bu am solo la match bu am solo si ñun am important trop si ñun waaw incha allah dinañ gañe dinañ gañe yaakaar dinañ gañe sax tontu waaw ñaata ñaata non deux lay doon nuyu naa la fay la Zeyna nga gisee match bi tey match bi tey amul luñ far man fi ma far bi ragaluñ loolu koy fay. ñu ngi lay fay te wóolu ngeen seen ah? waaw waaw. ba mu leer bii ngeen foog ne tey teen bi neexutoon yaakaar ci loxo yàlla mais l'essentiel dañuy gagné ñun waa teen bi mm. waaw. kon yow wóolu woo sa bopp xaamalaa nu ah. feneen ah. man yaakaar damay doon 3-0. 3-0 laay door dem final macha allah ñoom daal ñoo xam kan may gagné ba tey naa du ma bàyyi topp ma rek ma daal di xuus naa la. Eh, fay naa la fay naa la. tey nga gisee match bi. waaw leen bëgg a doon 1 yaakaar moom moo koy dóor wala kii moo koy dóor. non teen bi mooy dóor teen bi. <laughs> nañ daal di xuus ci biir rek ma daal di naa la. waaw maa ngi. yaa ngi am jàmm. baa bu baax maa ngi am jàmm. tey lan si match bi nga xam ne daw na yaakaar ak teen bi lan nga ci wax. waaw man yaakaar laa si sam-sam laa faral. ñaata bi 4-0 la incha ah, waa teen bi neen duñ leen may dala de. ma waa teen bi mooy loolu billaay lii lañ am ñoom nii lii lañ am si kii bi si

waaye sant rek. yéen a si jàmm. sant rek bu wér. foo leen far yaakaar la affaire bi yaakaar la. yaakaar ngeen far da koy dóor waaw. yow foo far. teen bi laa far. waaw oh, man ma jaaxal. waaw violence non violence la ñuy dund mais bu arbitre sifflé nga xam ne affaire bi yaakaar la. non kii li ma koy doon bërul parce que dañoo yaakaar ne kaar teen te duñ gis dara 2-0 lañ leen ñu dóor mais football moom ni la moom non violence parce que ñun ak ñoom nawetaan ni la parce que ñun ak ñoom ñoo dend quoi mais teen bi da koy rey. teen da koy rey. nee naa leen tey ah waa El Vision Médias tey dara du yomb gis ngeen tey ambiance bi nga xam ne am na fii si bi ah danga may daal di topp laa def dëgg neexul ala ah, yàq sama bopp sama bopp nii waa kay nuyu naa la. fay naa la yow. Fafar. waaw man neex na. tey ñaata bii nga bëgg. waa tey moom deux laa indi tey. yow wóolu nga sa bopp. Ah? loolu kenn wérante ko boo xoolee waa teen bi li ñu wàcc see nga war a xam ne instant dañoo pare. waa après loolu tey euh, lan ngay wax ku xam ne tey euh, gars yi yëpp xam nañu Samsam 3 ak teen bi lépp benn la. tey kon boo amoon comme conseil lan ngay conseil teen bi ak waa yaakaar. waaw te ñu xam ne ñun ñoo bokk lépp rek affaire de nawetaan la jàmm ak salaam la parce que ñoo bokk benn dëkkuwaay te yi bu ñaawee tamit xam bu ñu demee après gàcce moom mooy am kon xam na doon ñu fubal ci fair play yàlla def ñu am ndam seen kaw après ñu ñibbi ah waaw suñu fête suñu waaw suñu victoire après ñoom ñëw mooy loolu incha allahu rabi. kon jeex na nañ dem doxantu rek. waaye yaraax lañu. gars yi ñoo ngi daw waaye nee naa dama leen may dara waaye sam sam. ndax waa ASC teen bi laay génne ñu wax ma tey match bi na lañ ko yëgee. amul ñu ngi ak ki nga xamanteni ni mooy ten bi ñom ñom lañ door déception bi reyna na gis nañu sa gaay ñu ngi joy gëmon nañ ko def nañ match bu mag après défaite au porte de la finale coach yow ñu won xam lan moy ci première ki ni sentiment bi ngay ressentir lan moy ci impression ci match bi bon sama première limay may sentir moy di remercier sama joueur di remercier sama staff yëpp parce que entraîné nañ li ñu wara entraîner entraîné lépp lu ñu wara def rek pour gagner def nañ ko pour gagner mais xeyna tay suñu borom moy maye ndam ñu ndam li dañ fi daan joggé di kontan. kon tey bu ñu fi jógee itam mu demee itam dañuy war a kontaan toujours sant yàlla daal bu baax daal waaw. waaw nan ngeen préparé match bi. waaw match bi on s'est bien préparé dañuy teel a dem entraînement yóbbu booy mettre leen dans des bonnes conditions ñu entraîner comme il le faut encadrement bi géré daal bu baax techniquement mentalement physiquement préparé nañ ko daal mais xëy na tey yàlla suñu borom moo ñëw nii rek mënuñu ci dara daal sant daal. ok ñu ngi merci beaucoup. ok gars nous def dara continuer capitaine Samsam Sam. mon fils Ibrahima mon fils Koli Mon nga Mon Samsam différence Mon passe Mon fils nous nous. Eh, a baax. ñu Nous, ah, féliciter nous. li nous nous. Nous ndam li nous, final pour la deuxième fois consécutive nous, nous année bi passé nous, final aussi première équipe qualifiée ñu bëggoon xam lan premier mot mon fils après émotion bi. waaw premier mot bi que remercier sax équipe malgré masse bi parce que suñ la. Euh, final bi li ma ci wax lu wax ju bari parce que je la jàngal benn yoon xam

équipe bi bëriwul star mais dañuy produit jeu bu doy waar waaw loolu la ñuy sant yàlla xam ni daal bu yoon jeexul daal waaxu suuf du jeex daal. waaw instant yi est-ce que yéen xam ngeen daaw li nga xamante ni moom moo leen xañoon coupe bi pour ngeen travailler ci ren pour jéem ko améliorer wala. waaw waaw waaw loolu xam naa sama staff yi ñoom ñoom ñoo la mën a sori foofu noonu wax ji parce que ñun ñu ay ndaw lañ rek dañuy liggéey dañuy wax defal la ñuy def li def la ñuy def li mais. leneen li ci ginnaaw moom amul benn problème ñoom ñoo koy gérer ñun terrain bi rek lañ gérer. waaw ah, dernière gis nañ moom fils boo xamante ni dafa déterminé wu. day produire jeu day day fournir marquage aussi loolu yëpp ci bëgg la nekk doomu dëkk bi la wala. waaw parce que dafa am benn pacte bu ma signé ak équipe bi mooy que ni ren damaa bëgg a bàyyi nawetaan bu ci yàlla àndee mooy que ni dama bëgg a def sama kéemtulaay kattan parce que coupe bu ne laa jël ba mu des phase nationale mais sama koñ dama ko bëgg a jëlul ren jii damaa bëgg bàyyi nawetaan te yàlla tax rek.

force derrière bi. <laughs> ben ñu quoi parce que gars ñu ngoy koy liggéey ah te bu dee football mom moy fay quoi c'est normal ligue bi final encore di encourager wa teen bi parce que ñun ño far quoi man teen bi laay yéwo bi ma fa tuxusee yag na mais football fair play la quoi di len xama encourager di waxa sama gaay ñu yoxu yalla may ñu final yi quoi. waaw vraiment kontaan na ñun ñëpp quoi vraiment euh, liñ bëggoon yàlla yóbbu nañu fa suñu borom rek moo may ah parce que mënuñu ñu gagné ah wax dëgg yàlla. ok ñu lay remercier. waaw ñu ngi lay remercier yéen waa El Vision tamit kontaan nañ seen liggéey ah. jaajëf waaw gars dañuy continuer ba